Euh, jërëjëf ñi nga xam naa ni euh, vraiment li ñu bëggoon euh, gën a taxawu ci làmb mm. actuellement ñu ngi gën a gis ni yeneen mbër yeeg yenn promoteurs yi yenn supporters yi ñu ci nekk mu ngi am ay jiixi jaaxal ba bërki démb gis nga ñaari association yi nga xamante ni am na mm. muy association nationale de la lutte mm. Gris Bordeaux jiite ko ak benn association bi nga xamante ni mooy jeune reporter. Ah. dégg nga jeune. kàggu loo waa ba kàggu yàlla bàyyi ma ba liggéey ah. ay waay lan la. association beneen association bi di association des jeunes lutteurs. Ah. mobile jiite ko. gis nañ beneen boo xamante ni tamit judduwaat na Sibor moo ko jiite. làmb noonu muy dundee fi mu toll nii nan waaw loolu mooy li ma wax rek nañu nañ defaraat toogaay hmm. te bañ ne ji maa moo jiitoo rek daa am lu tibb ngir loolu. te da ci ñoo xam ne maa ngi jiital li mooy damay tibb wala su may dox li may dox man rek maa koy dox. Hmm. te bu ma koy dox du ma ànd ak ñi nga xamee ne ñoo ma jiital. dëgg loolu nag moo yàq léegi moo tax kenn ku nekk day bëgg a jiitu te boole ci association yi boo xoolee làmb yaatuwut. te fi mu nii boo xoolee vingt vingt association yi ngi fi. xam ne boo demee ci kuréel gu mën a doon am na fa. kii jiite diw diw jiitu diw jiituwut te njiital li lépp kenn ku ci nekk maame ka la nga fa bëgg mooy dafa xaal loo xam ne boo léegi maame nga xamee ne buñ nee dara nga ne noonu ma retiré wu naa waaw ndax man mii nekkoon naa président seen amateur may nuyuwaale président Gora Ndoye moo ma ko yor. président maa ngi koy nuyu bu baax di ko ñun bi ñuy yor bi may xeex président seen amateur xeexuma woon ko ngir dama ci dama làmm man dama ci bokk. Mm. man 1986 laa jëkk si daan làmm. 96 waaw diggante Salloo Boy Kayre seen premier combat bi ñu bëri am gason bi. Mm-hmm. foofu laa doon tëbe man stade di dugg Iba di seetaan man virusu làmb moo ma solo. Mm-hmm. may xeex di xeex di xeex ba gis ne làmb tey intérêt làmb mooy amateur dafa war a gis Mm-hmm. ma créé jeune amateur. yor ko yor ko yor ko ba nga xamee ne tey dama bo dama nekk promoteur nekk amateur mënul ne. Mm-hmm. tey bu fekkee ne tey amateur tey exemple Fallou Ndiaye su tëggee lamb. Mm-hmm. ma dem di xeexal Fallou Ndiaye te xam ne lamb dafa am tëgg perte am lamb tëgg gagné. kon day mel ne am lu may nuru. moo tax ma joxe raaya yooya ci li ma nekk. li ma nekk nag maa ngi ci di bay sama waar mais association yi daal bokk na ci li nga xam ne moo gën a sooxal lamb quoi.